xam nga moom Mamadou Léopold buggul sax ma wax parce que xam na fu ma jëm euh, arrangé wu ko moom. gis nga dans ce débat là nous sommes très à l'aise président de la république moo tax ñu nekk à l'aise président def ne moom doyal na sëkk dafa war a dem. en fait président doyalul sëkk waa déglu rek déglu rek déedéet. musuñu doyal sëkk. bu ah, ñu demoon élection ñu dumawaat leen. encore une fois Benno Bokk Yaakaar n'a jamais perdu d' élection depuis 2012 ba nëgëni. la coalition n'a jamais perdu d' élection. Khalifa kañ lañ ko kañ la commencé bokk. dialogue bi passé te dialogue moo ko jox président de la bu woote woon dialogue xalifa moo ko war a jiitu en réalité. parce que dialogue moo tax mu bokkaat ci game bi te warul xañ ñeneen ñi seen bokk. muy ñoom Sonko ak ñeneen ak ñeneen dafa war a ñëw parce que dialogue nag lu mu woote mooy ñu déggoo ci ay affaire mais wóolu nga say idée wóolu nga say proposition ñëwal nga ñu jox la parole nga wax. quel est le problème